junniy jigéen nga yor di ta wax amul ba tàkku te lépp yaay dem ñu topp sa ginnaaw jël leen dama laa wax ñu lu baax lu ne mën nga koo dégg ku yeneen tëb yàlla ku ne dañ laa jaamu ci sàggu fëriñ bi ñu daj ñu ngay xayam xayam sama waa jaañ mi bi nga màggee baax askan wi nga bokk bu lu ci kenn gënul mu doy bii su ngóone looloo am sa gërëm na la gërëm na looloo am laaw la tex guddi bi ci foqtaan ngi taar beeg jom geeg maanu geeg baax dama ne jigéen wax nga dama ne wax lu baax léegi danga ni ko waaw si jàkka yi yaa ngi ci ci jumaa yi ci néew di doole yi ci école yi waaye lu ci prison yi yow laa li ci réew loolu la def woman power lu baax lu ne mën na a ci nekk ba mën na koo dégg. parce que loolu Fatou Ismaïla Mbaye. Mor Mbaye dama ne biisu tàggat na. waaw bàyyiwul kenn <laughs> déedéet. bàyyiwul ñu ci picc déedéet bàyyiwul ñu ci biir déedéet waaye fàttewul kenn waaw du tas yaakaar waaw du fecc coloré waaw du woor ba ci réew mi la dëkk fii la dëkk fii la def li muy def waaye nag Modou Mbaye Bijou Dagana Modou Mbaye waaw dama ne bi ko séenu muy ñëw waaw tabarkalla masalla te nan ko jàkk di ko jigéen ji mën góor a gën a baax Modou Mbaye dama ne kii seral na xol Sénégalais dama ne lu góor yi bëxee def ko Bijou balaa tën def na ko bu yàgg te gan du sàmb àllar way wu taxu koo jóg déedéet Bijou ci lu baax lay dox ci lay dox ci ay lay dox ci maanaa lay dox Bijou Dagana waaw waaw barke am te lu baax lu mu def. waaw ndeyam ak nag ci famille am la ko njëkkee. te kat réew mi Ismaïla la xam nga lu fi xew. lu fi xew madame Diou. waaye moom. waaw bisu ngóor rek la ñu wax. ba ci alxuraanu kari fu mu doon madame Diou la ñuy wax. waaye moom bu ñu waxee da naan bisu jàkka. réew mi soxla nañu bisu ngóone. dama ni jigéen loo waxal waxal lool ca kaw. barke Serigne la mën nga koo a waaw boo leen avancé. waaw waaw boo leen avancé gars nan la ñuy jëlee. saa yi. arrière la ñu suuf dañoo am. arrière. arrière la. arrière. waaw. dix personnes. parce que ayca mbokki internet yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal tey ñu ngi fii ci diwaanu Camp Pénal lu ñu fi indi ku nekk xam na ni tey la 8 mars bu ñu nee nag jigéenu jàmbaar yi la ñuy daal di sargal fii ci diwaanu Sénégal ak àdduna wënga këpp euh, ñu taxaw ak bisu Ngoné mu ñëw fi nga xam ne moom mooy Camp euh, ngir sargal ay nawleem ay nawle jigéenam Bijou maa ngi lay nuyu euh, di la wax nekk encore une fois mbégte la ngir fekkaat la ci Camp maa ngi leen di fay di leen nuyu bu baax a baax baax euh, di la sargal yow mii jigéen nga njëkk posé question ah euh, di leen dëgg yàlla ci journée bi nga xamante ne bi ndax ñu fas yéene ko a kaas euh, di leen jaajëfal di nuyu seen mbokk internet yi. ban yëg-yëg nga am tey ci bés jigéen ñi nga xamante dañ leen di sargal fépp ci àdduna war nga nga ñëw ngir jàppale say mbokk. déjà dañuy am euh, contentement bu ñu yàlla dimbalee ba ñu bokk waaye dañuy am naqar ndax fii ñu leen dëgg yàlla di leen bi nee naa euh, ci leen koy defal dëgg euh, action yi nga xamante ne moom la ñuy def tey dañu bëgg ak mu jot muy wàññeeku mais pas muy yokk ndax fii nga xamante ne foofu lañ leen di fekk li ngay privé doomu aadama muy lu gën a rëy muy liberté donc euh, nit ki moom wax dëgg yàlla lépp loo ko ciy defal rek euh, euh, naqar nga ko ciy defee donc bis bi nag wax dëgg yàlla nee naa nag wax dëgg yàlla dootul bis boo xamante ne jigéen ñi commencé nañ comprendre dootul journée boo xamante ne dañuy tëgg di fecc ak i way sex ñu ngi ciy dox kéem kattan nu ñu mën pour ni ñu xam ne que 8 mars ñun jigéen ñi dañu war a xeex suñu ay àq ak suñu ay yellef ah, fexe ñu jugee ci point A dem ci point Z donc euh, euh, noonu daal la ñuy marché bi di tëddee à fois. acte bi on a l'habitude de le faire parce que Women Power la ñu nekk ah euh, muy organisation boo xamante ne c'est une organisation strictement féminine ah base sur une politique socio-économique et culturelle. et c'est une organisation à but non lucratif mais tey wax dëgg yàlla dañuy fexe ba objectif bi. képp koo xamante ne jigéen nga nga nekk ci secteur bu mu mënti doon d'âge et secteur goo xamante ne bu mu mënti doon que ça soit nga nekk jaaykatu gerte bi ci biti jaaykatu lépp fépp lépp loo xamante ne daal jigéen mi ngi ci bay waaram Momonpro da lay daal di dimbali ci façon bi mu la mën a dimbali muy euh, euh, nombre d'heures yi ñuy lijjanti ci nga xamante ne moom mooy ordre des avocats pour utal ko ñi nga xam ne am na ñoo xamante ne amuñu ay visite am na ñoo xam ne mosuñu gis seen ay seen ay mbokk bu ñu génnee fan la ñu jëm euh, euh, location yi ñu leen di wutal pour ñu di fa nekk ba mu ñuy ba ñuy mën a réinsérer seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy ci dëkk bi donc bari na bari na bari goo xamante ne wax dëgg yàlla moo mën ko mu koy dox ci action yooyu daan ko def ba nit ñi fekk suñu moo tax euh, tey wax dëgg yàlla ñu gën di moo tax ñu koy def ci gàttal Women Power moom laa lay wax c'est une très grande organisation bii su moo ci jiitu mais ñi nekk ci sama ginnaaw bari na maam jaara benn gi ñuy taxaw kenn gi ñuy taxaw te ñoom ñëpp euh, euh, amaana ñu ci ëpp sax tey la ñuy gisante wala bu ñu dajee kese la ñuy door a gisante donc action yi ñuy def bari na wax naa ko euh, bokk na ci bii bokk na ci bii ci gën a fës ren parce que dañu toll foo xamante ne benn bijou kese moo ko daan def ñu toll foo xamante ne dafa dañ ko war a fësal actuellement gën ko yaatal parce que ñi ci bokk actuellement c'est des centaines de femmes donc euh, ñun ñëpp xajuñu fi dañu sélectionné ñenn ñi ñëw Camp Pénal tey suba encore dañuy dem Rufisque après dañuy dem euh, ki nga xamante ne moom mooy Kaolack dañuy dem Diourbel ci prison Sénégal yi nga xam ne fa la jigéen ñi nekk nee naa la woman power organisation la pour dimbali jigéen ñi donc bu ñu paree ci lii dañuy dem ci orphelinat yi dañuy dem euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, nurserie crèche yi ah euh, Albert waaye bari na ci action yu ñuy def don de sang yi bari na bari na idée bi moom wax dëgg yàlla idée sociale moom ah defe naa ci jaamu yàlla bokk dimbali ay doomu aadama ak dimbali ñi nga xamante ne yéen a nekk moom wax dëgg yàlla jumaa yi ñuy tabax ak yu ni mel am na foo toll fooy toll ci sociale dootoo ko nëbb waaw. Euh, parce que gis nañu récemment ñu nekk ci mois de mars coow yi ci réseaux sociaux yi wax ci ci réseaux sociaux yi yàqante diggante Pendo Guissé te ku ne xam nga ni jigéen nga. diggante ce que doo def tey journée 8 mars. lu gën sell gën a rafet. parce que tey journée jigéen la gëw ni wax dëgg yàlla. waaw mais ka wala ku nekk sa état d'esprit fi mu toll. waaw mais journée bi nga xamante ne tey ñu ngi koy def ci ay dons di def social est-ce que gënul rafet ñu xool li rafet ci ñun ñu fësal ko après bu loolu jàllee rek jàll ci leen waaw parce que tey defe naa li ñu def nii ci mois de mars ah waaw waaw mais mois de mars man exemple laa war a wane ci mois de mars li jigéen war a doxee ak su néew donc munuma di xool négativité aw ma boobu temps donc euh, négativité boobu lépp lu ma la ci wax it waxuma dëgg parce que j'ai pas le temps donc euh, dama nekk si si si si organigramme boo xamante ne j'ai une maman très nekk ci loolu nekkaat ci sama programme bi nga xamante ne moom lañ nekk nii donc voilà vraiment franchement parler j'ai pas suivi seetaanu ma xooluma exactement mais man bu ma sañoon lépp loo xamante ne Pendo ci action yi la daan nekk chaque 8 mars ñoo ko daan àndandoo donc ci loolu man laa mën a wax ci lu baax li nga xamante ni ci la ñuy nekk et puis wax dëgg yàlla bu jeexee rek di nga gis bis beneen bi ci war a mën tontu wax waaw Euh, gis nañu tey ci suba benn audio bu génn bu diggante nga xamante ne moom mooy Farba Ngom ci ay kàddu yoo xam lan moo tax yow yow en tant que jigéen tey nga bëgg def négativité si sa rôle te pourtant yow xam nga ne bisim nga jàkkaarloo moo la ëpp fit du dëgg mais forcément on n'est pas obligé de regarder tout le temps ce côté négatif que loolu moom moo lay permettre nga am longévité si liggéey bi est-ce que comprendre dafa mais tey moom moo ma yëgal loolu xam nga ci suba ba tey nga nekk di collecté ay dons ñëw pour def lu baax nga di a reculer du ma ko nangu boobu am naa fulla boobu waaw mais am man ci suba ba tey man mi xëy di collecté di defar pour di ñëw dimbali sama mbokk jigéen ñi nekk fii bu ma la tontoo rek damay tàdd bu ma toppee ci loolu nga logique boobu noonu rek damay daal di reculer alors que euh, euh, du ñàkk fitu tontu ko parce que man ku ne xam na ni fit moom wax dëgg yàlla ci man la ci man la commencé ci man la yem mais non non non non xam naa nag dañuy door a jàkkaarloo wala soit suñu jàkkaarloo tey da nga bëgg da nga gën a mën a bëgg kii waaye xam naa ni euh, euh, euh, biisu ak biisu rek wax dëgg yàlla lu may waaj di laaj da nga koy laaj laajaat ko du dëgg mais wax dëgg yàlla bëgguma ñu attardé wu ci foofu mais bu dee ñaari fan sax xam naa ne rawee naa la ko ci li may def mais bu fekkee ne bëgg nga sa carrière bi gën a yàgg bul attardé wu ci yoolu question yi day koy posé au bon moment waaw mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut donc yéen ñii ñi fi nekk nii ñëpp defe naa ni kenn ku ci nekk bëgg nga wax dëgg yàlla toog ba ñu naan ah diw wala nangam wala nangam mais tey moom xam naa ne bis bii ak action yi ñuy def ak ñi fi nekk nii amul leen dal billaahi wallaahi taala ku xalaatu yàlla suñu borom damaa defe ne moom mooy tax yooyu di am. ak euh, bis bi dafa am seen diggante ba jëloo défense. non non non j'ai pas le temps de prendre une défense que ce soit. nekk nekkuma fi je suis pas l' avocat du diable wala avocatu kenn man du ma jeeg buy ñaan xooñ du ma jeegu kenn encore une fois de plus tu comprends man Aïssatou Diop Fall naa naa pas de moi ce que je man it defuma ci moom li nga xamante ne moom li nga wax nii bu ma ci waxee naa féq laay doon parce que suivre ma ko est-ce que nga te li ma wax nii bu leen ko dagg da koy teg intégralité tegee ma waxee ba fi ma egsi ndax lii nga may wax yëgu ma ko yaa ko yëgal lu tax nga bëgg ma wax ko yéen yéenay dugalaate du dëgg parce que man Aïssatou Diop Fall bokkuñu yoon du ñu gisee lan moo tax nga jàpp ni man war naa ko war a mën a défendre ci loo xamante ni yëguma ko non mais on parle de man moo man je suis pas di wax pour kenn nit je parle jigéen ñëpp laa fi nekkal surtout ñi nga xam ne ñoo ma yëkkati tey du ma nangu ngay focus ci ay affaire ay Aïssatou Diop Fall pour yàq doo yi may def tey voilà Aïssatou Diop Fall yëkkatiwu ma far bu moom wax waxi noppi waaw man nag lii ma dajale fii yëpp defuñu ci waaw kay donc lu sama yoon ci ñoom voilà euh, message bi may lancé mooy euh, di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci biir wax dëgg yàlla ñu génn ba mën a fekk seen ay njaboot fépp fi nga xamante ne euh, waa Women Power dinañ fa dem ci mois de mars bi parce que ne dimbali prisonniers yi dañ leen di wax dëgg yàlla massawu encore di ñaax jigéen ñi waaw ndax wax dëgg yàlla égalité équité moo ko gën te loolu la ñu soxla tey bu ñu jëlee jigéen